bi mooy le financement des partis politiques gis nga le financement des partis politiques euh, c'est un problème boo xam ne euh, bu fekkee ne yaa ngi suivre l'actualité sous-régionale coup d'état yi am dans la sous-région guerre yi am dans la sous-région pour yow la moo ko indi mais ce sont ce sont ce sont les hommes politiques ah parce que tey da ngay jël réew mu mel ni Sénégal ñu ne Sénégal am na gaz am na pétrole mais les hommes d'affaires li ñuy njëkk a def. les bailleurs li ñuy njëkk a def les financiers li ñuy njëkk a def dafa am ñoo xam ne seen i milliards la ñu yor ne la Guinée dégg naa dañuy war a dem élection nga xool opposition bi ki ci gën a taxaw chaque fois comme ça ça euh, ça se passe ah, te ñun xam nañ nu muy demee ñu ne la diw moo gën a taxaw ci opposition bi nga ñëw ne ko loo soxla pour sa campagne mu ne la temps temps temps temps nga jox ko mais demal dans les grands pays boo demee yow nga ne je suis je suis un homme politique. bu ma amee temps temps temps temps damay dem mais gars yi dañ lay jox xaalis dafa am ñoo xam ne ñoom loolu mooy seen liggéey léegi nag en contrepartie bés boo jëlee réew mi nag ñoom signé leen seeni contrat jox leen réew mi daanaka daanaka entre guillemets nga jox leen réew mi bu fekkee ne or la bu fekkee ne pétrole la bu fekkee ne gaz la ñu déroulé à leur guise waaw mais li ma jaaxal mooy lan moo tax ñu yëpp opposition bi pourquoi ñu ni dañuy xool opposition bi ki mieux placé te du ñu xool ki nekk ci pouvoir di dem élection soxla xaalis ñu financé ko ni ko boo rempile nga nekkal ma fii waaw mais xam nga et puis lan moo tax ku yéeg opposition ba dem pouvoir xamuñu noo yéegee dootuñu la boole ci tuuma yi non xam nga dootuñu la boole ci tuuma yi pourquoi pourquoi xam nga xam nga tey euh, boo xamee état nu muy doxee nga am ci benn aperçu pas nga xam ne mais nga am ci benn aperçu l'appareil d'État dafa am nu muy fonctionner aujourd'hui boo nekkee euh, boo nekkee dans le pouvoir approche bi un homme d'affaires étranger di am ci yow day uteex boo nekkee dans l'opposition parce que yow bu boobaa état par état ngay fonctionner mais l'état bu ñëwee dafay fekk ay homme d'affaires yoo xam ne moom ñoom la tàmm di liggéeyal l'état bu bu ñëwee dafay fekk ñoo xam ne ay acquis la tey le président Macky Sall am na si ñoo xam ne ay ay ce sont ses partenaires de confiance mais buy liggéey ñooñ lay liggéeyal am na si ñoo xam ne ay multinationales lañ il sont déjà implantés au Sénégal mais daf ci am ñoo xam ne ne dañoo bëgg parce que les multinationales il faut savoir que ne fu ñu xës ba dugg li ñuy njëkk def mooy dañuy fexe ba keneen du dugg pour ñoom ñu jéem a xool naka la ñuy gën a. maye euh, le tere mais aussi naka la ñuy gën a accroître. d'accord loolu loolu dëgg la mais mbirum financement yi moom ku ci jël xaalis bu jóge bitim réew daf naa état am na doole bu toll ni yow bu naaw bëgg dugg Sénégal sax dina ko contrôler kon yaa def yaa def yaa def bi yëpp coow li muy bëri bëri yëpp ah génneel ay preuve ki def ñu jàpp ko ni preuve yaa ngi nii wax ji euh, féete boor euh, affaire bi du ay du ay jiñaate de vraiment affaire bi du ay jiñaate affaire jiñaate yi voilà man affaire jiñaate du ma ci wax xam nga lu ma ci wax mooy que ne pour man ay waxi naka sa kan la rek te gëwuma ko sax. boof ak ku mënti doon ah ak ku mënti doon parce que dama gëm ne ne eh, état euh, du caaxaan l'état a les moyens pour effectivement vérifier vérifier ay transactions ay leneen ak leneen man yooyu man new ma ci détail yooyu mais dama ne la financement man je suis un responsable de partie financement parti politique yi laa lay wax da gis Sénégal ñu ne la Gaoussou Koma c'est un opposant lu muy liggéey ñu ne la c'est un politicien politique rek lay liggéey muy dawal oto buy jar quatre-vingts millions yor siège boo xam ne il paie deux millions cinq cent di entretenir un électorat bu nekk ne caution trente millions trente cinq millions mu génn ko te déggoo cotisation déggoo euh, euh, ne am na ci am na ci. levée de fonds waaw am na am na lever de fonds amul amul amul amul amul amul amul nga gis ne ne. ñooñu ñi ngi mën a un train de vie boo xam ne ne yow yow mais man am na ci tey dans l'opposition ñoo xam ne damay toog ba ci yàgg ma ne mais attends nu mu demee mais bon danga naan ñi nekk ci kaw ñoo la gën a xam mais da ngay noppi. d'accord donc tey pour man bu ñu bu état bi jëlul see responsabilités ak sew tous ces ren tous ces renseignements sur le financement des partis loolu moo gën a gaaw taal réew. baax na tey tey am na si ñoo xam ne ils ont ils des milliards et des milliards lu ñuy xaar mooy Sénégal am na benn euh, gaaw su comment boo xam ne ne leer na leen ne suba mën na jël réew mi ñu ñëw indi la ay maletu maletu maletu xaalis te gars yi bu ñu lay jox xaalis en général du ay virement bancaire ah. ay man mii nga xam ne ne sax euh, voilà novice laa ci loolu du ma 10 millions sax du ma la ko defal virement bancaire gars yi ay malet malet lañ lay indil en devise jox la ko si suuf na la nga yëngal. maintenant nag loolu mooy. boo gisee tey un responsable de parti politique qui travaille pas qui n'a aucune activité mais l'incentive est là nga gis na ni kii mu ngi dawal oto buy jar. waaw du loolu laa la wax. kii mu ngi def kii mu ngi def jarul muy gudd na ñu mais nañu jël les corps de contrôle. jarul muy gudd nañu jël corps de corps de ñu dem vérifier leen. jarul muy gudd ñooñu dañ leen jox mission nañu def kon seen liggéey te ba a cibler opposition opposition muy opposition muy pouvoir borom malet yooyu bu ñu financer opposant am yaakaar à plus forte raison yor pouvoir war koo mën a yoraat. quand même wala. xam nga tey eh, borom malet yooyu moom mooy li ma la wax dafa mel ni yow suivre ma. xanaa da nga xanaa da jot a gisante ak ñoom saa yow. li ñu ci wax dama ne la dama ne la borom borom. dañ la jot a proposé malet. gawsu et puis booy wax li ma ciy gën a reetaan lu. <laughs> gawsu naan woy man su comment un opposant su kañ nga nekk opposant non xam nga. Gawsu yaa ngi ànd ak Amadou Ba. xam nga Gawsu opposant ça c'est c'était à l'époque. xam nga c'était dans les temps. xam nga xam nga tubaab dafa ne comparaison n'est pas donc bu fekkoon ne suivre nga filu li ma doon. développé suivre naa lépp. dama doon joxe exemple ci man mënoon naa joxe exemple ci kii mënoon naa joxe exemple ci mais exemple laa doon joxe sur l'opposant laa doon joxe mais pas Gawsu en tant que opposant donc tey euh, en résumé euh, fu may waxee ci loolu mooy que ne. Euh,